ñëw nag ànd ak ñi nga xam ne équipe lañu muy ay cadre de haut niveau dogu mënoon taxaw comme man talal seen loxo ngir jël bar ñi ñu tekk seeni loxo ñoom ñëpp ñu bàyyi ne tey dañu jël Alioune Badara mu ñëw taxawal ñu jiitu te détermination boobu engagement boobu yaakaar bi ñu teg man moo tax ma décidé que damay taxaw ngir ñoom seen intérêt ak intérêt bar ñi ñu taxaw défendre Bargny xëccoo li nga xamné moy maire bi fi nek jël ko defaraat ko taxawlat ko toggaat ko tek ci lay rampe de l'émergence ndax Bargny fi mu tollu nek na ci jafé jafé guddi gu lën gu jeex gu dul jeex te kenn xamul kañ lay jeex ba même ay journalistes taxaw prédire la disparition de Bargny non Bargny ne disparaîtra pas ñun ay domam danañu taxaw

ñaarel ba institution municipale bi nga xamné ne wara taxaw doomu Bargny dimbali leen ñu dem ba rupture bobu am ba nit ñi gëmatuñu ne mairie am na njariñ xakañ ah, mairie amna na instrument de développement territorial Bargny li fi maar Diouf ba yoon moo fi nek dara yokkuwul tay ji 70 000 habitants à Bargny 4 postes de santé la ñu am une maternité qui ne fonctionne pas tay ji école fourniture scolaire ba ka doomu Bargny gëj gis kenn xamul kañ la tey jii bar ñi bu nawet jotee li nga xam ne la ñuy xaar ci municipalité mu taxawu ñi ngir mën ñu xeex wàllu sibiru ñu ko am suñu jigéen ñi mënatuñu faju géej gi mu ngi yàqu xale yu góor yi dematuñu géej ba bu ñu demee géej Kafountine lañu dem wala wala Joal wutuma cër ngir pos wutuma cër ngir alal wutuma cër ngir ay suuf wutuma cër ngir oto wutuma cër ndi dayoo dama koy wut parce que doomu Bargny la war a défendre sama dëkk wala taw sama dëkk taw samay rak taw samay doom pour que demee ñu mën a jàngi école mën a faju man a am fourniture mën a fexe ba xale yi ñu mën leen tàggat li nga xam ne mooy nekk suñu kanam di port bi nekk ci ñu kanam di yeneen projet yi nga xam ne ñu ngi ko fay def jam ji fu mu toll ñu mën a tàggat suñuy doom pour lu yëngatu ñu mën a am moyen diplôme boo xam ne bu liggéey jotee ñu mën a teg seen i kayit ñu mën leen a dimbali mais bu ñu jëlee suñuy doom formé wuñu leen taxawuñu leen encadré wuñu leen ëllëg li ñuy namm si ñoom luñ ko mën a mottale moo tax am na ku posé question bi ndax Badara il est candidat à la mairie de Bargny Ousmane maa ngi lay tontu ne Badara dafa taxaw du moom rek mooy candidat équipe la candidat bu muy coordonné taxaw xëccoo mairie Bargny moo ñu tax a jug. te damuñ duñu yem ci xëccoo dañu ñëw fu xate mairie bi jël mairie bi teg suñu loxo.